jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene dellusiwaat dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique di ay jàngat yu ñu def ci mbir yoo xam ne xew na ci réew mi di ñaan yàlla mu baaxee nu xel mi ba ñuy mën a yàbbi kàddu yoo xam ne kàddu dëgg la mu nekk kàddu yu ñu gëm ñu jege nag ci bés bu sel di bésu gàmm Euh, di tertu juddu teg yonent bi salaahu alayhi wa sallam ñëpp xam ne senegaal ci wàllu diine pas-pas bi cawarte gi ak ngëm gi foor na fi lool ba tax damay tàmbali di wax ne ngalawaay nañu moytandiku di taal daay ndax laata ñu jëm ci gàmmu gis ngeen li fi xewoon kenn kuy xutba di diingat lu mag ñu baax ñi def fii ci réew mi di diingat li nga xam ne moo di gàmmu may wax rekk ci loolu nañu delloo siwaat xel yi ndaxte wolof dafay faral di wax ñetti wax koo xeebal sëriñam koo xeebal soxlaam koo xeebal bésam yaa ko tooñ kon yéen ñi nga xam ne da nekk ci ay mouvement gëmul leen li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi ngalawaay ñàkk leen ko gëm bu leen neexee waaye teewul ngeen bàyyi ñeneen ñi nga xam ne ñoom am nañu mat ak dal goo xam ne ñu ngi leen di seetaan ñu leen ngeen bàyyi ñooñu ak seen ngëm-ngëm parce que loolu dafa sensible te bu nekkee ci wàllu diingat mën na leen wax na leen yéen ay mouvement ñoo nekk ci bitim réew di leen financer jox leen ay alal teewul am ngeen fi seeni juma seeni jàkka dafa fa jaamu yàlla niñ fa ñëw di fa julli si xam ne yàlla ji kenn la kon ñuy ñaan nañ delloo siwaat xel yi di moytandiku di taal daay ndax réew mi dafa am nuñ ko mooñee ci nuñ ko mooñee noonu nag jàmm rekk la ci tarixa yi dox ba mu mat sëkk ndax lépp bu réew mi mësee yëngatu nga dégg leen ñu wax moo tax may wax ne lu rafet lañu gis war ci gërëm ki nga xam ne moo ko def tey jii ku dem ci bërëb yi nga xam ne nit ñi moom lañu gëm muy Tuuba di Tiwaawan di Kaolack di Njaasaan di feneen ak feneen nguur gi am na ay taxawaay yu yees yoo xam ne am na ko yu mucc ayib nag ndax ku den yàgg dem béréb bu mel ni Tiwaawan gis nga ne am na yu yuñ fa def yoo xam ne yombal na bu baax a baax taalibe yi fay dem ngir rek gëm seen sëriñ ngir rekk jaamu yàlla ngir rekk wiiru ci kàddu yi nga xam ne moom la mag ñu baax ñi bàyyi fii nguur gi tabax fa ay jumtukaay yu mucc ayib mu nekk projet bu rëy a rëy jëm ci bërëbu diine yi bërëbu diine yooyu nag comme ay millions million wu sénégalais ñoom ñoo fay dem jaadu na ñu am projet de modernisation des cités religieuses kon bu ko régime bii defee donte ñuy wax ne balee ko sooke woon balee ko xalaatoon waaye ci ñii la tombek ñu réaliser ko ba ñëpp gis ko mën nañ leen see sant di ci gërëm bu baax a baax président Macky Sall ak ay ministre am ak i jawiram di fàttali ne réew mi soo xoolee indépendance am ba tey jii niñ ko mooñee mooy ànd bu rafet entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ànd boobu nag lalu ci kaw dëgg loolu la ñuy ñaan yàlla ànd pouvoir temporel ak ànd pouvoir spirituel dafa jaxasoo ci histoire politik Sénégal tàmbalee ba ci xeex li nga xam ne wàllu colonisation gis ngeen ni ci mag ñu baax ñi taxawee bañ réew mi ñu acculturé ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasoul jàll bii wàll Seydi Mahi El Hadji Malick Sy jël beneen wàll ñoom ñëpp liggéeyal diine ba tey jii ñu baree bari mën nañoo wax ne am am ngëm ak pas-pas bu wóor ca fa nga bokk tarixa yëpp nekk benn nag ndax moom la sëriñ Sidi Maxtaar Mbàkke moom santaane wone na ko jëfee na ko ndax nag ca symposium ba ca gàmm ga taxaw nañ fa délégation bu mag jóge ko tuuba yëkkati kàddu ñu ne fa yëm ñu dem seeti sëriñ Abdou si Sy Al Amine ay benn teral ko indi seen participation lu jëm ci gàmmu muy wane na tarixa yépp a bokk réew mi noonu lañ ko ràbbee noonu lañ ko mooñee di wax ci biir àndandoo bii am ci entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel yàlla na koy dëgg rek lal moo tax may wax ne yàlla na ci politique seppeeku ñu teg ko fële ndax boo jëlee colonisation bi ba sengoor ñu ko Seydou Nourou Tall jàppale woon Senghor sëñ Fallou Mbacké Abdou Diouf sëñ Abdou Lahad Abdoulaye Wade sëñ saaliw ba tey jii li nga gis yépp jaxasoo gi benn la woon waaye ñuy ñaan yàlla sunu homme politique yi ñu bàyyi bés yi nga xam ne bés yu am solo la ci nit ñi nga xam ne ngëm rek la ñuy woyee ñu koy politiquer amul njariñ lu tax amul njariñ tey jii jàpp naa ne mënuñoo waxati waxa waxa ba mën a diri ay taalibe na leen votel leen ñii par la force am na fi sëriñ yu fi dogu woon am na sëriñ yu jëloon télé bi wax waaye lañu wax safaandoog lool li bëgg-bëgg askan wi def mu nekk fii ci réewum senegal am na sëriñ yu fi dogu askan wi déglu leen ba baax ne leen yéen lañu gëm waaye lii mbiru àdduna dañ koy régler ak ñoom kon ñu dindi politique bi politique politicienne bi président de la république buy dem ci këru diine yi ñu ormal këru diine yooyu ndax ñooñu ñooy yëkkati seen kàddu sant ko ak gërëm ko waaye nag bu nekkee ne buy dem ci dëkk di meeting yi pancarte yi jolle buy dem ci këru diine ngir waxtaan ak ñoom pancarte yi ak rivalité yi jolli amul njariñ ñu ci wax ñu delloo ci seen xel ba tax rafet lu baax a baax kàddu gi nga xam ne xalif ba nekk sa seen wax na ko ne bu ñëw di indi inauguré lii bëgguma ci politique ndax ñun bu ñëwee fi ñu yor sunu kurus ñaanal ko mu dem lu ñu xalaat ci moom lu ñu gis ci moom lu ñu gëm ci moom sunu wiir doog suñuy ñaan lañu yor kon ni ci bëgg a prox ndollu des responsables politiques waaye waaye génn leen seen loxo ci li nga xam ne moo di diine ak tarixa yi nga xam ne yeneen ko bëgg a gàkkal sëriñ si timit faw ñu leen di ñaan ñu yàgg fi te wér di jot nag information yëpp di artu balaa atte lu may wax artu balaa atte sëriñ Abdou Aziz baax Dabakh yàgg na ko def bu coow amee ci réew mi mu artu lu yàgg na nañ tàppe xol yi wax leen jaar leen fii jaarleen nii fàttaliku leen maam Abdou Aziz Sy baax la mu waxoon ci taxawaayu député ba yuuxu waat fii ci zawiya bi ne député loo voté fii dinga ko vote ëllëg ak si booy voté na nga voté sa aqulaayu taalaa kon bëgg nañ taxawaayu sëriñ si timit méngoog loolu ndax tegtal bu gàtt rek laay wax seetlu nañ fi léegi lu xew mooy om d'affaires yoo gis yépp ku nekk yaa ngi bëgg sës rëkk benn sëriñ bu nekk ci tarixa loo ci jublu du ngëm de loo ci jublu du pas-pas de moo di rek am kenn koo xam ne moo la mën a defendre jël alalu réew mi ci ay marché yoo xam ne tegewul fenn naka sudul noonu xëy suba teel sëriñ bi mosoo ko jox addiya ay ati ati ati at lu toll ci cinq millions xëy suba teel bëgg ko indi addiya cent million sëriñ boobule bu sukkandikoo ci diine war na taxaw nela la kaay fan nga jëlee cent millions yi yàgg nga ci kër gi lool mosoo maa indi lu toll nii wante waruñu ñooñu am ay réeroo ak justice ay réeroo ak état bi ñu ñëw défendre leen parce que ci kër gi la ñu bokk loolu day fàttali kàddu yi nga xam ne doomu maam Abdoulaye Sy Dabakh wax na ko ne sama baay te li may wax dafa am seede ci gàmmu gi ne sama baay mës na yëkkati lu toll ci 7 million jox ma ko ne ko gasal ba mu xóot taal suul ndax xaalis bii wóoluwuma fu mu jóge kon xeetu taxawaay yooyu tamit sëriñ si war nañ ci xoolaat seen bopp bu baax a baax di toog di saytu waxuñu ko ngir gàkkal kenn waaye ñoom suñuy cëslaay lañ suñuy wéeruwaay lañ kon war nañoo mën am information yépp homme d'affaires yi nga xam ne gëmuñu ca dëgg-dëgg lu dul yonentu yàlla xaalis di def naka su dul noonu di gañe ay marché ba pare doo ko réaliser jël alal ji jël ci lu bari na maa ngi defar jumaa jële jël ci lu bari na maa ngi jox àddee sama sëriñ mu jël téye ëllëg ak si fu la gis nga portalewu ak moom sës ko rëkk doo ko bàyyi ñu ne kii de taaliba diw la ba woykat yi bu ñu way di dàkkantal di wax ne diw homme d'affaires bi taalibe diw diw li muy def ci lii te nag li jaaxal nit ñi yëngu-yëngu yu bari daana fi am duñ ci gis homme d'affaires yu bari waaye ñu jóg rek ne bëreet dugg ci mbir yi am na ñoo xam ne lu ne ni ñu koy defal sëriñ ci te kenn déggu leen waaye bu yëngu-yëngoom politique amee yëngu-yëngu cérémonie religieuse am nga gis homme d'affaires yi taxaw ci wetu sëriñ si ngir mbubboo leen di def naka sudul noonu kon sëriñ si timit loolu ñoo ci war a mën a jël seen matuwaay ba du nu ku dul koo xam ne ci dëgg ngay sax ndax defe na lislaam nag dëgg la bëgg loolu daanaka ay mbir yoo xam ne la dañ ko doon wax sëriñ Moustapha Sy Moustarchidine wala Moustarchidaty wax fi nekk nii lu juróon réeroom ak président Macky Sall tudd ci nag abdu juuf ma war a taxaw tuuti ci Abdou Diouf ndax nag jamono yii Abdou juuf bëgg na nekk problème mu Sénégal lu tax ma wax loolu 2000 ba 2012 gis ngeen Abdou juuf dafa na woon du ubbi gémmiñam wax ci Sénégal moo ne nag dinaa leen wax tey jii teraanga bure Ablaye Wade defal na ko donte sax jubawuñ woon torop ba mu nekkee secrétaire général OIF ba mbir yi dalee teraanga bu ne Ablaye wadd defal na ko Abdou juuf Ablaye Wade ci boppam sàkku woon na sax Tanor liggéey ak moom ne dem na ci sax bu bëgg ko proposer poste vice président Abdou Diouf waxoon tanoor Dieng ne ko demal nga liggéey sax Ablaye Wade Tanor dafa lànk bañoon kon Tanor bu waxee tey jii ne Abdou Diouf moo ma sant pour ma liggéey ak Macky Sall dañ koy wax ne ko Ousmane Tanor Dieng santoon na la ko diggante 2000 ak 2012 pour nga liggéey ak Ablaye Wade mais da ngaa bañoon. nel kay fi mu nekk nii yaa ngi sa fin de carrière politique noo koy rafetale ngay xool du parti socialiste moom moo la intéressé ñu d'accord ci parce que yaa ngi sa fin de carrière politique faw nga rafetal ko dégg turu président yor au conseil des collectivités territoriales waaye Abdou Diouf yàgg naa sàkku nga liggéey ak Ablaye Wade nga lànk bañ tey ci parti socialiste tey jii sa carrière politique nga gën a privilégié que peut-être intérêt parti socialiste waaye loolu beneen waxtaan la ci Abdou Diouf lay dellusi parce que Macky Sall moom la jël comme modèle comme référence lépp lu muy def da ci diisoo moom di ci waxtaan ak moom Maître Sidiki Kaba ministre de la justice falam mi ngi bàyyeekoo ci Abdou Diouf moo ko wax Macky Sall Macky Sall Oumar Youm la bëggoon def ministre de la justice boobu Maître Sidiki Kaba chaque jour ma nga woon ci appartement Abdou Diouf ca Paris Abdou Diouf na ko kii avocat la te xale la te yaa ngi jëm ci ay dossiers yu compliqué proposé ko maître Sidiki Kaba loolu yëpp xam nañ ko waaye dafay fekk rek ne tey jii bu nekkee ne li nga xam ne sëñ boobu wax na ko di sëriñ Moustapha si loo am la dañuy nekk loo xam ne lu doy waar ci taxawaayu abdu juuf parce que li nit ñi di gën a naqarlu ci moom réew mi desalatul dara Abdou juuf teraanga bu ne defal nañ ko ko bu ne waaye moom bu demee ci xelam bay toog di wax ne ñaanuma yàlla sama doom nekk chef de quartier fii ci réewum Sénégal fayul bor bi ay doomam <laughs> waaw nekkuñu chef de quartier mi ngi seen mais ñi ngi seen business ñi ngi seen i dil yu baree bari Macky Sall yombal leen ko torop yu baree bari Macky yombal leen ko am lu mu leen dénk kon teraanga bi ko Macky Sall di defal na dox ci digganteem ak moom ba muy jógee di bàyyi parti socialiste deful sax dernier comité directeur bu parti socialiste ngir tàggu leen dañ ko dàq 2000 gañe ko ca élection mu dem bàyyi parti bi kon bu bëggee fi mu nekk nii taxawaay bi nga xam ne ak gis-gis bi nga xam ne nit ñi nekk ci biir parti socialiste ni ñu koy am ci moom dafa war a am tuuti mandute bu mënee jubale mu jubale bu mënul jubale tamit bu mu imposer ku ne fu mu toog ak ay Tall Sall ne ko demal nga liggéey ak Macky Sall Macky war naa séq ak moom teraanga bu ne waaye tamit tey da ciy baax ci mbir yi bu nekkee ne loolu ñuy wax ne moom def na ko dem na fexe ba ne ñu ne ñu ngi def dil pour jot ci kii nga xam ne mooy Serigne Moustapha Sy amul worma waroon na weesu loolu rax ci dolli moom miy woote homme d'état foog naa ne warta nangu benn yoon amul benn raison benn logique bu tax bu ñëwee fii Sénégal amul kër gu muy dal ñu koy jox petit palais mu fay dal sur le plan administratif ce n'est normal na dem ci kër doomam Fabien toog fa comme amul kër Sénégal jiite koy at am fi bu ne kon faw ñu delloo si waat xel yi di wax ne fii ñu nekk nii jamono yii il faut réew mi ñu ànd ak dal homme politique yi ànd ak dal kilifa diine yi ni ñu mooñee réew mi ak ni ci taxawee tamit ñu wekk leen jox leen gëdd gi nga xam ne moom leen war a jox mu mat sëkk gëdd googu nag ñoomit it fu fa toogee bu ñu làq ñi nga xam ne dañuy def naka su dul noonu nekk ay njublang ne ay homme d'affaires lañ fekk homme googu le am na lu baree bari lu ci laxasu gëmuñu sax sa dëgg-dëgg këru diine yee ñuy dem. kàddu yooyu lañ leen bëggoon dénk tey jii seen biir cronique di wax ne euh, euh, jóge ci gàmmu gi ak coono gi waaye sant yàlla bu baax a baax a baax du ñàkk dossier yi nga xam ne diggoon nañ leen ko den ko càmbar. xootal ko yaatal leen ko wax leen ko ci anam nu mu gën a sellee parce que jàpp naa ne réew mi ñun ñoo ko moom jàpp naa ne réew mi ñun ñii ñoo ko mën a defar du saaga du xasante du waxante lu ñaaw mooy defar réew leen sant di leen gërëm di leen dig daje ci seen beneen chronique seen site dakarmatin.com incha allah